man la Abdoulaye Thiom nekk CFP bu Mbàkke sama soxna moo réer euh, depuis démb léegi dafa ñëw ay dix heures et demi yooyu la fi jógee bi mu jógee mu dal di dem euh, jël oto Touba Mbàkke ba ci rond point bi diggante Touba ak Mbàkke moom mu wàcce foofu bu mu wàccee nag oto bi koy yóbbu ci gynécologue bi moom amu ko mu taxaw foofu ba ci yàgg benn oto bu ndaw ñëw mu ne ko man foofu laa jëm sama soxna laa àndal léegi nag moom mu woo ma téléphone mu ne ma ndax ma dugg ma ne ko ah, est loolu wóor na mu ne ma wóor na parce que benn mag la ak ànd ak bu ànd ak soxnaam léegi nag bi ma tawee tuuti rek dama xel xaw a ñaaw ma woo ko téléphone bi ma ko jotee téléphone mu ne ma rappelé tuuti bi ma ko rappelé waatee euh, portable bi ci boppam dafa sonné ba dugg boîte vocale depuis boobu nag boîte euh, vocale ngay euh, jot ci la ñuy dem ci clinique bi ñu parcourir euh, malade fa ñëwoon koy gisuñu fa turam alors donc ñu dem déposer ñu plainte bi commissariat ak gendarmerie waaw Oumou Karara la